Euh, leneen loo xam ne euh, sportif bi nga doon laay interpellé euh, am na sax coow lu mu jur ah, ci ci monde sportif bi ñenn ñu bëri di ko ñaaw lu mooy cette déclaration du ministre de l'énergie Birame Souleye parlant des parrainages monde sportif football lamb xëy na ces ces propos ont été mal compris xëy na aussi que li mu bëggoon wax rek la wax mais yow bëggoon naa ci am sa sa sa sa avis. bon écoute Birame Souleye dafa nekk parrainage yi dans le monde sportif. dañ ko war a dindi ki moom nanguwul ci loolu. Mhm. bu ko boo kenn parrainé bu ko ci kenn xaar bu ko kenn parrainé bu ko kenn xaar. Mhm. parrainage yi xale yi nit ñi dañ koy def pour yenn saa euh, pour non def mais aussi pour jël waaw euh, boobu lay lay boobu lay waxee mais boobu aussi il faut mu xam ne. moom ministre du pétrole lañ ko jox. <laughs> ak gaz. Uh-huh. du loolu. yoonam newul ci culture ak sport. déedéet déet déet yoonam a ngi sax. Mm-hmm. dëkk yi développé yëpp sportivement te am gaz ak pétrole. gaz ak pétrole ñoo financé sport bi. Mm-hmm. moom na fexe ba gaz ak pétrole yi financé suñu sport loolu dañ. moom na jël benn pourcentage ci gaz ak pétrole. dugal naa la sport. jeex na foofu lañ koy xaar muy Maroc muy astafurlah muy euh, dans pays arabes. mu yéen dëkk au Nigéria un peu partout c' est l' pétrole Algérie ak yooyu. Mhm. moom la jël ak gaz bi moom la ñuy financer sport 1 pour cent 2 pour cent 3 pour cent. Birame Souleye da liggéey foofu liggéey bu de lépp solo mhm. fi mu ko defee ci au sortir d'une mosquée peut-être que ce n'est pas le lieu. Mhm. mais aujourd'hui su bëggee dimbali dimbali collègue bi nga xam ne tey gis naa si ni 17 axes yu mu génnee di wax financement de sport les financements extérieurs les financements amul feneen fu gën a baax financement fu dul ci gaz bi ak ci pétrole donc Birame Souleye il a du travail maa koy tàllal sama loxo ministre ba ministre mu ngi koy tàllal loxom mhm. et nous nous souhaitons qu'il travaille bien un pourcentage du gaz du pétrole na ñëw sport ah, le monde sportif parce que le président Sall il a beaucoup fait pour le sport sénégalais ci régime am sax la ñu euh, champion d' Afrique ci ci ci discipline yu bëri ah muy football bi euh, équipe A bi ak yeneen discipline euh, tey jii nii ñi fi nekk continuité. la ñu war a def wala y des choses a revoir dañu war a équilibrer le président Sall s'est appesanti sur les sur, les équipes nationales surtout sur l'équipe nationale A. Mm -hmm. il a tous les moyens qu'on a demandé sur l'équipe nationale quand même il l'a fait ñun aussi euh, li mu defoon bari na ma nga xam ne amul nañu kerse wala boog demandé wuñu ko woon que mu def sur le football local. Mm-hmm. donc tey ñi fi ñëw ñu bees et je pense que le ministre. waaye euh, le football local est ah. appuyé ah. non euh, am solo. parce surtout les clubs ñun ñun les clubs ak ñun les présidents du mm-hmm. club dañu takk suñu biir rey suñu bopp pour faire euh, de ce football là sacrifice suñu bopp pour l'équipe nationale A. Mm-hmm. pour que Sénégal am une vision parce que bu ñu koy def dañ ne état bi comme que dugalul xaalis ci football bi dañuy fexe ba xaalis bi nga xam ne FIFA moom la teg CAF moom la teg ñu dem jëli ko. Mm-hmm. te pour ñu dem jëli ko il faut ñu gagné ko añe nag dañu nañu ba foofu vraiment on a on a gagné l'argent là-bas. et pour pour l'équipe nationale. Mm-hmm. mais tey li ñuy demandé mooy euh, à l'état du Sénégal et au nouveau ministre que les mu aidé leen je pense que euh, le, ministre a bien posé les problèmes je pense que bu ñu ci taxawee euh, y a pas de problème duñ ci mais am na ci yaakaar.